feebar gi mën nañ koo fàggu mën cee mucc itam teewul nag muy gën a law ci àdduna wërngal képp fii ci Sénégal nag xayma ko doon na lu jafe. siribu bi quand wàññeeku na mais dañoo seetlu ne temps yi euh, juróomi at yi mujj yëpp dafa stagné c'est-à-dire wàññeekuwul yokkuwul boo xoolee bu baax a baax euh, tout le temps ci même nombre de cas yi la am. naam nag ñoo ngi def ay jéego yoo am solo ngir daal di koy xeex barab yu bari fii ci Sénégal nag moo ngi fay xaw a law. boori Kédougou Tamba Kolda foofu sibiru bi dafa gën a bari. la ko wundu moo di. Kédougou ak Kolda ni mu bindoo ci wàllu naataange ci wàllu taw bu bari ak ñàkk assainissement bi. programme bi ñu daal di koy door ci atum ñaari junne ak fukk ak ñeent. ren nag ñu daal di màggal seeni fukki at ñu daal di koy tënk nag ci ponk yi nga xamante ni nag faaw rek ñu daal di ci mën a sukkandiku ngir amal liggéey bu am solo ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent balaa nag ñuy wax jëlee fi boobule feebar fii ak 2030. dafa am benn jumtuwaay bu bees bi koy wax administration de masse de médicaments. testé woon nañ ko ba pare mu wane ay efficacité yu am solo loolu bokk na ci li nga xam ne bëggoon nañ sensibiliser population bi bi ci des mooy campagne yi ñu daan faral di def mooy la chimioprévention saisonnière du paludisme mooy xale yi nga xam ne dañu am 3 mois ba am 120 mois dañ leen di jox ay doom yeneen ay perspectives yoo xam ne am nañ ko mooy souvent li ñu daan faral di def mooy prise en charge jox nit ñi ay moustiquaires alxamis la ñu daal di door ab campagne mébét bi moo di palu ñu daal di ko fi jëlee ba faw ngir loolu mën a yemb nag ñoo ngi ñaax askan wi ñu daal di wàccoog digley kër docteur. buñ la joxee sànke bul ko def ci sa jardin da nga koy takk ci sa biir kër.